nga wut soxna jiili wasaare utal soxna hôtel bu Dakar nan waaw yaa ngi di utoo soxna ndax soxna jigéen da laa géndiliku ay astafurlah ah, jigéen da laa géndiliku am na social yëpp am na ñàkkul nga am malade boo xam ne dégg naa nga damay faj ba mu tane ma takk ko yaa ma wax loolu man de liggéey bi jaamu yàlla laa ko jàppee yàgg na ci réew bi du ma fi jóg ah. waaye yàlla maa te yow arbitre bi sifflé Bato ak Zos Bato ak Zos Zos doon na daw ñëw waa Zos mi lu muy def Zos mi est am na garde Zos mi lu muy def Zos mi lu muy def Ousseyn ndeke lu mu doon def ba dee dekkee ba ko de. waaw ah, bu dekkee ba ko. Plateau dóor na mu daanu de. Plateau dóor na mu daanu mais est-ce que xam nga ne Plateau dafa bokk ci làmb. Ah. ndax premier combat bu ñëw am coow loo xamante ni xaaw ko woon ndax xale yi ku ci nekk da ngay rente pour am coow. mais moom moog Laurent ah, seen coow da leen jiitu ci làmb moo tax tey gis nga dafa ànd ak sérénité boo ko xoolee sax xam na dafa liggéey liggéey na moom mooy Boy Plateau mais waa Grand Yoff depuis démb ba tey neex léegunu ah mooy seen troisième combat. ndeysaan démb am nañ defet tey am nañ defet bi mooy seen troisième combat mbokk yi ci diggante Bato ak nga xamante ni mooy Zos diggante Caaroy la ak fi nga xamante ni mooy Grand Yoff. kan moo jugee Caaroy. Euh, Bato moo jugee Caaroy Bato Bato Bato non non diggante Grand Yoff la ak ak ak ak jàmm gën. ak jàmm gën bato moo duggee jàmm gën moo duggee fee Grand Yoff waaw ma koy dóor waaw Zos mii Zos mii saf na de weex na xat xool ko Zosa ngay dóor Zosa ngay dóor bato ndeysaan Zosa ngay dóor ngay dóor ndeysaan bato ngay dóor ndeysaan Zoss ma ngay dóor fekki ci suuf ndaysaan ma ngay dóor ndaysaan ma ngay dóor ñu ngay xeex ci suuf ñu ngay xeex ma ngay dóor uppercut mbëkk wala déet i koloj lépp am na ci làmb ji <laughs> waaye Zoss na sàmm ay tànkam ah. ma ngay dóor di sigi di dóor di sigi na sàmm ay tànkam ba bato ngi nuuru rek kenn xamul loo lay liggéey nag ndax xam nga géej lu nekkee ci boo nuuru am na looy seet bato nag la muy seet kenn xamul lu mu doon. mais Ouzin xeex daw jàppante ak dóorante ban moo ci daa. <laughs> nga di jëlee eh, Zoss nañ ko Zoss mat ma yenu na ko da koy daan Zoss daan na ko. amati nañu defet amati nañu defet xol bi neexul tey ak neexul. Zoss daan na ko. Zoss daan na ko. sa la. lu tax. boo war na laa seetaan ngay génnee daal seen kër.